mbokk yi tàmm lu baax rek ci table yaa ngoone te di ko amee fii bu ñu yegg seeti li nga xam ne rek mooy wàllu cosaan wàllu aada ci wàllu faj dañuy ñëw nag seet si tey ki nga xam ne mooy Serigne Mamadou Lamine Bara Fall ah, Fall Ndiaga mi nga xam ne rek macha allah mi ngi fii ci fi nga xam ne mooy arrêt Doubalès Guédiawaay euh, tey ñu seet si ko ci li nga xam ne rek moom la fas yéene teg ci table ji mu tegoon ko ci muy loo xam ne rek macha allah xamee nañ ko ko muy jaara bi waaye nag tey def ci ñëw ci ay leeral yoo xam ne yu ama ama am solo la sëñ Bara auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe sëriñ Touba jaraw lakka maam Cheikh Ibra Fall euh, Soña ñoo ngi kontaan ci ñëw bi ñu fi ñëw bu baax di nuyu askanu senegal ak àddina bi yëpp di ci jiital sunu bunt kër sëriñ Touba maam Cheikh Ibra Fall di ci jiital sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides di ci tegit sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall ak ci sunu buntu kër sëriñ Fallou Mbacke yëpp li nga xamante ni moom la ñu ñëwee tey rek ngeen fekk fi euh, ñu bëri xam ma ci ñu bëri xam ma ci senegal ci ci Serigne Lamine Bara Fall ci baatin bi ci wàllu ñaan ci wàllu ubbeeku surtout wërsëg ndax jafe-jafe yi dafa bare trop jamono ji ci senegal nit ñi soxlaaw ñu lenn lu dul lu leen ubbi ci seen ay bunt ndax nit ay bunt la am ay buntu wërsëg dama dégg ñu ne jaaro bi fi mu ne nii dëkk boo gis yaakaar naa li fa gën a dox commerce bi ci la bokk maanaam ñi ëpp li ëpp li nit ñi di liggéey euh, ma gis ne ñu ne jaaro bi macha allah ci wàllu commerce noo comment ma bàyyi la nga waaw soña ci wàllu commerce moom euh, nit ñi dañuy soxla bayre dañuy soxla mbooloo ku wax ak jënd ak jaay rek wax commerce te jaaro buble bii nga xamante ni moom loolu moo ko tax a jóg dafa ànd ak ay ñaan dafa ànd ak ay léemaay dafa ànd ak ay muslaay dafa ànd ay ubbeeku te surtout bayre lay àndal maanaam nit ñi bu njëkk dañ daan takk ay ndombo di takk ay gàllaaj mais donte jaaro bi nag àndal na ak sax ay sangat ndax nit ñi itam dañuy soxla ay ñaan lu mel ne ko ay saar ay léemaay ci faatiya falaqi naasi ay sootu yaasin lépp ci alxuraan ñu bindal leen ko defal leen ci ay ñaan ñu sangatoo ko pour yàlla musal leen ci ay cat ak làmmiñ mbooloo bi ñëw wërsëg bi ubbeeku te xaalis mën a toog seen loxo surtout nag ñiy def commerce moom macha allah rabbi ñi def ay import export ñuy tukki di voyager di jënd ak jaay ak ñi nga xam te ni sax ay commerçant yu ndaw lañ ñi nga xam te ay ambulant lañ ñoom ñëpp jaara bi incha allahu rabbi ñëpp ñu yëngu ci wàllu commerce bi bu ñu ko amee sunu borom dana ci def ay tawféex ci kàttanu sunu borom. gis naa fi bu marron gis naa fi bu bleu mi ngi nii lépp ci jaara bi ma bàyyi la rek nga wax ci li nga xam ne rek mooy bu ci nekk ak couleur am ak bu ci nekk kan ak kan moo ko tax waaw bu rouge bi moom après dinañ ci ñëw mais surtout bu bleu bi nga xamante ni moo gën a am solo foog ma dellu si comme ko wax nga ko léegi ci ouvrier yi ñi nga xam ni ñoo ngi def maçon ñoo ngi def carreleur ak ñi nga xam ni itim ay ay ay nappkat lañ ak ñi xam ni ay jigéen la ñu xam ne dañu am salon de coiffure ñooñu ñëpp incha allahu rabbi nañ ci ñëw wut si mbooloo meeg bayre bi incha allahu rabbi dana ñëw ouvrier yëpp képp kuy menuisier tôlier soudeur métallique ñooñu ñëpp incha allahu rabbi képp ku nekk ci liggéey bu ndaw rek bëgg ci am dara teral ci say wajur soxla ñaan soxla gàllaaj soxla léemaay soxla muslaay ci kaw jëm ci kaw incha allahu rabbi soo ko amee moom yàlla dana yàlla dana la ci dimbali te li ma ci sànq rek mooy ñu bëri sooñaar dañuy faral di am xaalis mën nañu am léegi léegi léegi deux cent mille suba ci ngoon duñu xam fu ñu leen jaar am na ci ñi nga xamante ne mën nañu am léegi léegi léegi fayeeku le premier balay la cinq xaalis bi yàqu seen loxo am ñoo xamante ni bu ñu amee xaalis ci po la leen di lañ leen di xiir dafa mel ni seytaane daf leen topp yu demee noonu loolu itam dana ci nekk li nga xamante ni da ci gën li nga wax sànq muy surtout bague bu rouge bi itam dinaa ci ñëwaat boobu li nga xamante ni moom moo ko gën a tax a jóg comme ni ma ko sànq muy jigéen ñi nga xamante dañu bëgg am borom kër mais ñooñu gàllankoor bi ci gën a am jafe dañu am ay faru rab léegi jaaro bii moom muy rouge bi képp ko ko takk affaire faru rab yàlla dana la ci musal faru rab ak coro rab muy ci góor wala ku jigéen ci ku ko takk incha allahu rabbi di nga am mariage di am jëkkër ju baax bu la jàppale bu la yërëm te mën laa yor te lu mu am bokk ak yow ba boo bëggee jëkkëru tubaab sax suñu borom la ko may surtout xale jigéen ñi léegi ñu bëri ci ñoom itam dañu bëgg ku leen dimbali wala ku leen jàppale wala ku leen mën a yor incha allahu rabbi daañu ci mën am bu buñ ci voyagé dañu mën a am kër am voiture mën a voyagé mën a dem fépp fu ñu bëgg dafay ànd ak ay sangat day ànd ak ay suuraay seytaane yu muy àndal am ay sangat te boo jëndee jaaro bi am nga possibilité bépp jàngoro bu nekk sa yaram soo ko waxee dañ la ci mayaale garab te doo ci fay dara. bu ñu fàtte ne yaa ngi yëngu ci wàllu faj ah, yenn jàngoro yi ñu bàyyi la nga wax ci jàngoro yooyu joxe waale numéro téléphone bi. fii moom ñu bëri xam nañu fii ma nekk muy Géejawaay arrêt du bales ñu fa dañ fi faral di ñëw ci seen ay yitte te yitte yi nit ñu am fii ñaar la seen i jàngoro ak seen ay aajo lépp rek ñu teg ko ci alxuraan karim ñun nag lépp lu génn yàlla génn yonent bi génn alxuraan amuñ ci yàq amuñ ci defar jaaro bi amul sirk amul dara lu ñuy def ci biir lu dul ay ñaan alxuraan moo ko tënk nga xam ni ay léemaay lañ ci def lu mel naka faatiha falaqi naasi ay suurtu yaasin lépp luy ubbi nit ak lépp luy aar nit rek wallahi wal azim def nañ ko ci biir te ci kàttanu suñu borom képp ku ñu yàlla booleel ci xam ni nar nga cee jëriñu yàlla na suñu borom indi képp ci nga xamante ni nar fi ñëw it sa aajo faju yàlla na la yàlla yóbbu fa gën ci yow ak fa lay fa lay faj yàlla na la ko suñu borom yóbbu maa ngi faral di recevoir chaque matin fii ci Géejawaay arrêt du bales matin bu jot 8 heures ba 13 heures incha allahu rabbi chaque jour du lundi au dimanche ku fi ñëw 24 heures 24 di ñu fekk mais lundi ci ngoon ak jeudi soir ñu ngi recevoir fële sama kër Tëngéej ci HLM mu Tëngéej ci terminus su 48 bi incha allahu rabbi lundi bu jot ak jeudi bu jot képp ku fa ñëw ci ngoon di nga ma fa fekk ci numéro yi ñu mën jotee nag mooy 77 646 41 21 mooy fii ci Géejawaay 77 646 41 21 Rufisque bi muy Tëngéej bi foofu ñoo ngi ñu mën jot ci 77 160 93 93 160 93 93 jërë ngeen jëf jërëjëf Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibra Fall